salaamaaleykum mbokk internet Sunugal 24 mbégteeg bànneex lee daal doon saa su ne topp gi ngeen ñuy topp waaye rawatina ànd bi ngeen ànd ñu suñu plateforme bu yanj bi nga xamante nag moom mooy suñu internet yéen ñi nga xamante ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci plateforme bi nga xamante ne moom mooy Sunugal 24 waaye rawatina yéen nga xamante ne ngeen nga xamante ne ngeen topp suñu ay plateforme moo xam Facebook la moo a a baax ayca ñëwti nañ nag ci émission bi nga xamante ne nag moom la ñu dëppee kaay seetlu di émission boo xamante ne dafay faral di dalal ay ndaanaan waaye tamit dafay faral di dalal ay kilifa su ma nee ndaanaan waaye su ma nee kilifa mooy ñi nga xamante ne dañuy faral di yëngu ci wàllum lastar ah di ñaan boole ki nga xamante ne moom mooy seet ak seetlu waaye ñu ci faral ci dalal ñoo xamante ne cee xarañ lool moo xam mag la moo xam ndaw la saa su ne comme ni ma koy daal di waxee rek wax dëgg fa yàlla xam-xam du ci yére du ci mbaxana mën nga doon ndaw wax dëgg fa yàlla te am xam-xam loolu te nag ñu dalal fi koo xamante ne nag ambassade de Serigne Touba la ñu gën ko xam ci Serigne Babacar si Serigne mu doon jàmbaar lool ci wàllub lasaar waaye tamit doon xale moom la ñu fas ak moom tey waxtaan ci wax fas yéene waxtaane li nga xamante ne moom mooy xam-xam ndax donte sax suñu borom màccal na ko ci te def na ko ci moom ñu fas yéene ko waxtaan moom nag dama koy bàyyi mu nuyu ko internet yi Serigne Babacar maa ngi lay nuyu aouzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi al awalul bila bidaaya alhamdulilahi alaxirum bila niaya ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di sant seexul xadim radiallahu taala anhu ñoo ngi leen di nuyoo nuyób diine muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf macha allah ayca mi ngi noonu di Serigne Babacar ambassadeur Serigne Touba mu doon ndaw waaye tamit doo tut tànk comme ni ma koy waxee saa su nekk rek dem na jàng ba jàngi jotee dem xam ba xam jotee waaye mu dem gëstu ba gëstu jotee ci wàllu xam ak lastaar suñu borom rekk ci may loolu donte sax am na yàgg na am ay résultats tey sax loola tax ñu dalal ko fii ci suñu plateau bi di suñu gaal 24 waaye sëñ bi euh, xam naa ne nag balaa ñuy door waxtaan bi mënul ñàkk ndax internet yi moom foo ñu naan waa xale bi doj nag nangam nangam yooyu moom xam ne mooy ci yoon bi nga nekk waaw ndeysaan ñun nag suñu borom dañoo bindee ni ñu ñu mu ñu bindee mhm. ñu doon ay ndaw teel a gëstu ji xam-xam mhm. waaw teel a jàng mhm. daanaka bi ñu jógee ci daara ji it taxul ñu delluwaat ca kër ga dañoo génn gëstu ji xam-xamu asraar mhm. mu doon loo xam ne suñ borom dañu cee defal ak ubbeeku ak fàttu mhm. muy ak ubbeeku mhm. loolu nag mënta ñàkk daanaka dañuy foog ne xam-xam moom ci mag rek la war a ne dëgg waaw xam-xam moom warul nekk ci mag ci mag ak ndaw ndax jaamu yàlla yaakaar naa jamono ji ñu ñu nekk ndaw ko gën a mën a war a gën a man ci mag dëgg ndax toogaay bu yàgg ak yenn yi ak ci wàllum mbind mi ci wàllum yeneen ak yeneen yaakaar na mag am na foo xam ne say at bu fa àggee doo dootoo ko mën dëgg la ok. Mhm. mi ngi noonu euh, tey ñu fas yéene fekk fekk yow waxtaan ci xam-xam bi nga xamante suñu borom defal na la ko mm. nga doon ndaw ñu faral di fa dalal ku ne moo xam ay mag lañu bokk na ci ndaw yi nga xamante ni peut njëkk nañ la fay dalal waaye bokk na ci ñu ñu dalal ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante moom mooy wàllu seet ndax sëñ bi ñu bari dañuy jàpp ni boo doonee xale daa mm-hmm. doon buntu. Mm-hmm. waatu bu yóote mi abaabiha mm-hmm. buntu ñaan yàlla. li ci njëkk mooy seet. dëgg la ndax doomu aadama bi mënoo mënoo koo ñaanal. mooy kan. dëgg la ci njëkk mooy xam ay nga mën a tënku pour ñaanal doomu aadama bi. loolu nag lenn mënu ko wan lu dul seet. seet. seet nag dafa bari ay façon dafa bëri ay façon waaw ñii ñoo ngi seetee ci ndox mm-hmm. ñii di seetee ci pitaaw mm-hmm. ñii di seetee ci leneen ak leneen mm-hmm. eh, ñun moom seet gi nga xam ne moom la ñuy faral di seetee nagam sax seet yu bari man nañ ko waaye seet gi ci gën a taamu nga xam ne mag ñu baax ña seet gi nga xam ne moom lañ daan seetee muy ramb ramb waaw ramb mooy ban mooy seet tomb bi waaw mm. ndax dafa bari façon dafa bëri façon. waaw am na ñu koy tomb. Mhm. am na tamit ñoo xam ne dañ koy rëdd. dañ koy rëdd waaye ñun nag seet gi ñu ciy seet moom. Mhm. secret la boo xam ne doonul lu ñu war a mën a yaatal. la waaye eh, seet la goo xam ne. Mhm. amul lenn loo xam ne lu muy nëbbu la ci doomu aadama bi. moom seet bi moom seet gi. da lay wan lépp ci doomu aadama bi. lépp la lay wan ci doomu aadama bi. Hmm? waaw soo soo soo sàkkoo sax. mu wan la bis bi nga xam ne doomu aadama bi gën si na àdduna. Ah? ak bis bi nga xam ne. moom la fooree jugee. moom la fooree a moom la fooree jugee. ci set gi muy muy set gi. Mhm. suñu borom nag daa wax ci alxuraan laa yaxlamul xaybu illallah. Mhm. mboolem doo xam ne luy ñëw la moom moo ko xam moom yàlla. la waaye am na ci ay jaamu yoo xam ne. Mhm. moom moo leen fi teg ñu nekkal ko fi. dëgg la ndax su borom yaakaar naa ne wàccul di jox kenn lenn. déedéet lépp lu muy joxee da koy teg ci doomu aadama mu jotale ko. ca ka mu koy jox. dëgg la waaye seet gi nga xam ne ñun ñoo koy seetee muy ramlu. képp koo xam ne jëflante nañ ci. man mm-hmm. nga ñu sax dëkkal foo xam ne dëkkuñu fa ndax parfois nga wax nit loo xam ne. Mm-hmm. danaan kii mën ak moom dëkk. waaw waaw loolu du benn du ñaar. dëgg la parfois nit tiit ba coupé téléphone ndax ngir wax joo xam ne yaakaar na ne moo yàlla rek ko ko xam. dëgg la. muy muy seet gu leer goo xam ne. Mm-hmm. Eh, ginnaaw bi nga ko seetalee ba noppi. moom jëmmi seet gi dalay tegtal lii saraxi doomu aadama ndax daanaka doomu aadama lu ci bëree bëri bëri ku ci xam sa sarax rek man hmm. ngaa jëriñ ci sa àdduna ku ci xam sa sarax waaw gis nga ñaan lu li li koy nit ñi di taamu taamu taamu hmm. xam ay sarax moo ko gën a gaaw dëgg la xam sa sarax xam sa sarax hmm. bëri na ci ñoo xam ne nag dañuy saraxee lu dul seen sarax dëgg la bu ko defee loolu nag da leen di tëj ba daanaka dañuy foog ne sax. Mm-hmm. ñoom ci jëmmi bopp. Mm-hmm. amuñu wërsëg te fekk ne nit ki wërsëg lan waaye lañu jëfandikoo. mooy sarax ban génne. Mm-hmm. doonul seen sarax. kon nit ku nekk moom nit ne dafa war a xam lan la war di saraxee. waaw nit ci nekk suñu borom dalaa tëggal ay sarax yoo xam ne sa saraxu bopp la. sa saraxu bopp la parfois nit génne lu lu bëree bëri saraxe ko. te fekk ne lam la la doon saraxam benn la ca. benn la ca benn la ca. ca la mu saraxe yëpp ca la mu saraxe lépp benn la waroon saraxe su ko defee loolu nag. day day day doon loo xam ne lu koy lu koy yóbbu ginnaaw la. lu koy yóbbu ginnaaw la lu koy yóbbu ginnaaw hmm. benn boobu bu ko saraxoon day gis ay bunt yoo xam ne. Hmm. bunt yu xéewal lay doon ak bunt yoo xam ne su moom da koy jagleel. Hmm. moo tax lu lu dañ koo yombal seet. seet waaw seet waaw maaraay moom boo xee dañ ko yombal trop. dañ ko yombal lool waaye mu gën a jaaxal ci maaraay bu ñu lay seetal ay bopp yu métti lañ lay wax. <laughs> ah tànk beeg nangam nangam bu ñu lay wax loo xamante ni mukk lii nii. dañ ci dañ dañ dañ ci dañ ci kii. daanaka daanaka ci bopp ci daanaka seet moom. daa doon loo xam ne lu lu lu lu lu lu boo koy wax yomb na lool ci ak kaddu nga koy génne di ko wax. waaye lu jafee jafe la. lu jafe-jafe la. te nit ñi ni lay seetalee sax moom. Mhm. seet demeewul noonu. demeewul noonu. waaw doomu aadama donc da nga koy boo ko xoolee dëgg man li may faral di wax ñi nga xam ne su borom ak ñu bool ñu jëflante. Mhm. képp koo xam ne maa ngi lay seetal. Mhm. dam naa na lii nga xam ne moom la ma seet gi wan ma la koy wax. Mm-hmm. su dee loo loo loo dund la wala loo gisul la ci sa jëmm. Mm-hmm. dama lay delloowaat li nga ma joxoon. dama lay delloowaat li nga ma joxoon. waaw. maanaam bu ma la waxee dara loo xamante ne lii gisoo ko. ci gisoo ko ci seet gi. ma mm-hmm. delloowaat la li nga ma joxoon. macha ok mhm. euh, euh, euh, mais Serigne est-ce que dina la waxal tey jii nii comme par exemple tey nit bëgg dugg ci soxna nangam nangam mën ko soxna si lii ngay dugg wala nit bëgg a jënd kër wala bëgg a jënd oto mën ko oto beeg nangam nangam est-ce seet bi mën na la mën la génnal daanaka loolu loolu bokk na ci li tax sax nit mhm. war a seet gis nga doomu aadama bi sëñ bi mhm. doomu aadama bi lépp loo xam ne lu muy dugg la ci lu bees da cee war a xool ba xam gën a ci yow moo xam muy muy aw Mm-hmm. moo xam muy waruwaay bu bees gu mu war a wut. Mm-hmm. moo xam muy dëkkuwaay bu mu war a dëkk. dëgg la bëri na ci ñoo xam ne kër yéen dëkk. Mm-hmm. chaque jour ñoo ngi xiiroo ak ŋaayoo li ko waral mooy jëmmi kër ga daa am borom. jëmmi kër daa am ñoom ci jëm bopp laataa ñu fay ñëw am nañ ku fa fekk ku fa ne. dëgg la. léegi nag loolu lenn mënu koo génne lu dul seet. bëri na ci lu bëree bëri loo xam ne. Mhm. doomu aadama ngi ciy dugg di ci gis ay gàllankoor. Mhm. li ko waral mooy lam cay ba mu cay dugg xamu ca lenn. xamu ca lenn xamu ca lenn te it nit ñi dañoo topp seen i bëgg-bëgg ba fi ne nii. Mhm. buñ gisee dara bëgg ko rek. daanaka duñ xool li leen koy xaj ñoom lañ cay jotee lañuy lañu xool. añ ciy jotee. waaw te loolu yaakaar naa ne. Eh, lu dul seet mënu koo génne. lu seet ko. moo tax euh, seet doon loo xam ne lu am solo la ci dundu doomu aadama. dëgg la. waaw ndax day day day day day génne lu bëree bëri loo xam ne lu nëbbu woon la. dëgg la moom seet. waaw. Mhm. lu bëri. waaw te doon te ñu bañ ko weddi. Mhm. am na ci ñoo xam ne su borom jagleel na leen ñuy gis gis gu wér. dëgg la waaw. Mhm. bul dem ci diw rek. mu wax la nag su dul noonu. nga maasee na ñëpp rek. ñooy am am nañ ñu yàlla may ñun nag suñu borom dimbali nañ ci. Mhm. ñu ciy jëflante ak nit ñi jëflante gu leer goo xam ne. Mhm. Eh, ñoo ngi ciy sant suñu borom bu baax a baax. macha allah ok macha allah ayca mi ngi waxee rek wax dëgg fa yàlla jàmbaar la trop ci li nga xamante ne moom mooy lasaar waaye tamit rawatina li nga xamante ne moom mooy wàllub seet mais sëñ bi ci li nga xamante ne moom mooy raxas yaram ndax nag nit ñu bari euh, dañu koy dégg mais xamuñu ko maanaam raxas sa yaram peut-être ki nga xamante ne cat daf ko sonal wala leneen ak leneen ci wàllub raxas yaram bi raxas yaram nag moom sëñ moom mhm. nit ñi dañ koy jaawale ak kaaraange. ah dañ koy jaawale ak kaaraange. te du kon raxas yaram ba léegi bokkul ak kaaraange. léegi bokkul ak kaaraange. Hmm. kaaraange lu lay aar la. dëgg la loo xam ne. Mhm. bu nit bëggoon a jëm ci yow. Mhm. looloo koy protéger. Mhm. raxas yaram nag mooy. nit koo xam ne cat dalaa sonal. Hmm. ngay dugg ci dara muy yàqu. muy yàqu loo yaakaar mu tas. Hmm. say mbir taxaw. Mhm. léegi nag. Mhm. pour nga dem ci nit ki mu ñaanal la. Mhm. sëriñ bi ñaanal la. su dee ca nga jëm ku ko mate la. li mu war a njëkk a def ginnaaw seet gi. mooy li mu war a njëkk a def mooy raxasaw yaram ba mu set. a raxas sa yaram ba mu waaw gis nga bari na ay doomu yoo xam ne chaque jour nit a leen ñaanal. dëgg la ka leen di ñaanal sax man naa am ku ku ku suñu borom jagleel la. ijaaba mu muy mën a ñaan suñu moom di nangu. waaye jëmmi yaram wa mu jëm. ndax daa am ñoo xam ne seen i jëmmi rawxaan da leen di solo lu mel ne saaru perméable mm, mbuus mbuus nga xam ne mbooleem loon jëfandikoo rek ci kaw mm-hmm. loolu lay jaar wàcc mais du laal seen yaram mm, du laal waaw am na ci ñoo xam ne seeni rawxaan mm-hmm. daanaka lu buñ leen joxoon saafara nii mm-hmm. bala ñu ko buñ ko tegoon di ko waaj jëfandikoo ndox la koy def nga xam ne bu buñ ko jëfandikoo daanaka moo nga jël ab soo duy ci ndox ndox comme ndox robinet yi jëfandikoo rek la yam dëgg la raxas yaram ak kaaraange bokkul raxas yaram nag mooy raxas yaram yi mboolem taq-taq yi yëpp. nekk ci yow waaw. Mhm. doomu aadama boo raxasee yaramam ba noppi. Mhm. daanaka loo ko ñaanal rek lu jëm ci yaramam. Mhm. dina mën a dina mën a fixé ndax suñu borom jëmmi alxuraan ji nga xam ne moom ay waxam la. doonul loo xam ne lu lu woyof la. dëgg la te daa set. te suñu borom aw ñamam du dem ci ndab lu taq. waaw ñamu yàlla du du xajoowul ci ndaw ndab lu tax. dëgg la moo tax mboolem koo xam ne. Mhm. yaa ngi ñaandu. Mhm. li nga war a njëkkee mooy raxas saw yaram moom set. raxas saw yaram moom set. loo cay def nag nga doog ko caa def. loo ci def nga doo ko ca def ah, macha allah mais dañuy jàllal ci wàllu kaaraange parce que comme que nee nga euh, raxas yaram ak kaaraange bokkul te ñu si bari dañu koy daal di jaawale te da wax baat bu am solo mooy nit ku nekk balaa muy mën di ñaanu dafa war a raxas yaramam parce que loolu nag wax dëgg fa la ñu ci bari ci maara xamuñu ko mm. da nga xëy suba tey ñu jox lay saafara ñu mm. la tàmbalee bisub tey bisub nàngam xool ñu sax ba xam na ngaa taq xool nit yoo xam ne ñu waroon a dund lan dund gu Mm-hmm. bul guddi de. seenum fan gàtt lool. dëgg ginnaaw faatu moom. Mm-hmm. su morom moo ko waaye jaam bi bu sababloo. Mm-hmm. fonk boppam. jug ci boppam. su borom mën na koo dimbali ba mu dund dund gu diire gu teey. ndax bëri na nit ñooy dégg. seen carrière gàtt lool. dëgg bëri na nit koo xam ne nit ku lay tàggee. yow sa jëmmi bopp da ngay yëg ni kii. ku waroon a dund la. dëgg la da lay bett bett goo xam ne. Mhm. da ngay xam ne te yonent bi daa mos a toog. saxaaba yi fekkoo di ko laaj. Mhm. moom xaw a mel ne ku xaw jaaxle. Mhm. ñu laaj ko mu ne bëri jamono ngi ñëw. sama ñooñu bu doon cent pour cent la. te cent pour cent yëpp cat moo leen fi jëlee. cat moo leen fiy jëlee. moo leen fiy jëlee te bëri na fi mu ne nii barab yi ngay dem yu ci bëree bëri. ñu ko ku leen yeewoon. xam ne ñu ñu ñu xamal ne la ñoom fii catal leen fi yóbbu. tet moo leen fi yóbbu. moo xam ku mën a doon ñi nga xam ne dañu yëngu ci wàllum xeet gu mën a doon. Mm-hmm. jëmmi kaaraange moom ñëpp ko war a wut. amul ñii amul ku yëngu fii ki nga xam ne day toog këram génnul sax. daa war a mm-hmm. wut kaaraange. dëgg la ndax boo bëriwul ñu bëri dal sa kaw. waaw ndax ndax gis nga lii di bët. Mm-hmm. làmmiñ. lu nit ñi war a bàyyi xel la. bëri na ci yu taxaw yu bëri looloo ko taxawloo. dëgg la moo xam ki la tudd di la tagg nga xam ne lii mu lay tagg ci xolam nit dina wax nit lu baax sax mu doon cat ci moom. Hmm? wallahi lancim maam nit xool na ni li la tagg mu lii mu lay tagg nii mu doon lu baax mooy mu doon cat ci yaw li ko gën a doy waar mooy yow sa jëmmi bopp uh-huh. da ngay yére bu rafet ne ah sama yére bi rafet na mu doon cat ci yow ah barke Cheikhul Khadim ah mais sëñ bi loolu doy na waar de cat daa doon loo xam ne lu sew la kon léeg-léeg léeg-léeg nga romb nit soo wax la dara nga ne ko masha am ñoo dañ ci xaw a seen bopp waaye waaw dëgg la waaye lu am solo la masha Allah googu mu cee wax lu ko mën a protéger la lu ko mën a jëriñ la hmm. léeg nit ñi la nag li si nga dañ sànci nga ne ko masha Allah jàpp sa bopp waaw léegi nag la muy yaakaar mooy parfois nga wax ko sax mu ne la mun ma laa catu waaw du loolu sax masala googu da lu lu luñ fi fekk la. dëgg la te masala tamit doon na loo xam ne luy dàq la. Mm-hmm. waaw kon nag doomu aadama yëpp dañoo war a tënku ci wut kaaraange. dëgg la lu am solo la protéger saw yaram ba nit bu la dëgmaloon pour yàqal la. Mm-hmm. wala pour pour pour xañ la sag dund. Mm-hmm. war ngaa dina fexe ba. moom bala mu caa moom dina xaw a kiimaane lool. xaw a kiimaane kaaraange nag daa bari ay façon. moom kaaraange. waaw am na ci yoo xam ne sax dañ koy liggéey yoo xam ne. daanaka nit ki doomu aadama yi bu bu la xoolee ba ba xajalootu la ci dundam. Mm-hmm. bëgg ñëw ab accès ci yow. Mm-hmm. moom ak ku ko mën di liggéey moo xam muy indien. moo mm-hmm. xam muy pël moo xam muy séeréer. moom ci jëmmi boppam ko koy liggéey. dina waat ka fa ñëwoon doon ko liggéeyloo kooku. ngir ngir ngir mu bàyyi ko ngir moom ci boppam. du laal waaja de waaye ka doon liggéey liggéey ba. dina ci gis ay gàllankoor yoo xam ne. moom amul fenn fu mu koy nettalee. amul fenn fu mu koy nettalee. ah ci kaaraange. ngir kaaraange daa am kaaraange yoo xam ne. Mhm. kaaraange yu wér la. Mhm. képp ku la laal dina ko yëg. képp ku la laal bu la laaloon nawet bi nawet bële du ko fekk. du ko fekk du ko fekk. waaw te it loolu boo xoolee day am solo ci doomu aadama ndax nit ki nga xam ne daa jóg ngir yàqal la. dëgg la yaakaar naa ne noo ko mën a karee rek baax na. dëgg la noo mën a protéger ba du àcc ci dëgg la jërëjëf macha allah ayca mi ngi noonu Serigne ambassadeur Serigne Touba mu doon ndaw waaye tamit doon xale di yëngu ci wàllum laslaar moom nag suñu borom dimbale na ko donte ndaw la tout tànk la waaye nag am na xam-xam nekk ci moom ndax nag kilifa gu ne jëflante na ak moom te lu ñu nekkul fii ni moom mooy bar d'écran bi mais sëñ bi ci wàllub nopp parce que maara yi bari dañuy toog naan nopp nopp waaw wàllum noom nag. Mhm. moom yomb na ci ak dégg. yomb na ci ak dégg nopp boole ay nit. Mhm. yombul de. yombul wallaahi lancim yombul. Ah, yombal nañ ko de yombul. gis nga doomu aadama yi duñ ay xar. bag leen di fekk ñu yeewee nga yeewi leen di leen yóbbu fenn. wallaahi mhm. dëgg la. niñ ko yombalee parfois nga gis nit koo xam sax day wax day day leer na li muy wax ci boppam. moom ci boppam xam na ne. wérul mënul nekk waaw mënul nekk. dëgg la nopp yombul. Mhm. waaye nag ñun suñu boom lim ñu dimbalee mooy génn gi nga xam ne génn nañ ko. Mhm. dëgg la. di gëstu ci xam-xam amul leen lu bàyyi. Mhm. mu xam lu ñuul wala lu weex lépp suñu boom dimbali nañ ci. waaye nag ñu ànd ceeg ngëm yàlla goo xam ne lépp lu neexul yàlla duñ ci sóobu. suñu borom wàllum nopp nag. dafa am ñu ko mag ñi daan liggéey. moom nopp nopp. Mhm. daanuñu ko liggéey sax ci wàllu ay diggante. Hmm, taxawoon nga leen jóg. waaw ci la bokk nag waaye doon na loo xam ne. Mhm. ci mag ñi ni ñu ko daan liggéeyee. Mhm. mooy fami boo xam ne dañoo am ak réeroo dañoo jaxasoo. Hmm. wala ñaar ñoo xam ne dañ leen xamee woon loolu ñu daan ànd léegi àndatul. dëgg la. nga xam ne lañ ca jubloon mooy def lu baax. dëgg na def lu baax. boo xoolee ñun nag duñ ko liggéeyal ñëpp. mooy daa am ñoo xam ne dañ dañ koy dañ koy def lu ngir am caaxaan kum um fo. waaw dëgg la. salibataire te yaakaar naa lépp lu ci am rek. Mm-hmm. moom yow sa jëm ñu bopp. yaa responsable waaw yaa responsable. Mm-hmm. waaye nopp gi nga xam ne ñu koy liggéey. Mm-hmm. bu suuf seddee lañ koy liggéey comme ña ko mag ñu daan liggéeyee. bu suuf seddee. daanaka liñ yor ci yi nga xam ne moom lañuy ñuy jëflante ak nit ñi. Mhm. yëf yi mag la mhm. waaw ndax dañoo tërbiyewu mhm. sonn lool dëgg tumuraanke woon nag lool ca jamono jooju daan jël lu ne di ko jox ngir ngir ngir xam-xam nopp gi fa ñu ko wutee sori lool mag ma ñu ko jox nag yàlla na ko yàlla yërëm waaye mu doon koo xam ne ñu bëree bëree bëree bëree bëri di kilifay diine yi ràññee nañ ko te xam nañ ko mu doon ko am ijaaba koo xam ne. Mhm. sunu moom dimbali ko lool ci wàllum xam-xamu asar. Mhm. ñu nekkoon ci ak keppaaram. Mhm. daan fa tërbeewu. nopp gi ñu koy liggéey ci bu suuf seddee nga xam ne waxtu guddi lay doon. ci bu suuf seddee waxtu guddi. ci ki nga koy liggéeyal. waxtu woo nga xam ne day day day doon waxtu woo xam ne day tëdd. nga xam ne daara ci cëram du du yëngatu. du yëngatu waaw. jamono jooj nag ci ngay ci ngay defee li nga li ngay def ci nopp gi nga xam ne moom bu xëyee ba yeewu mhm. am xelam ak lépp ci doomu aadama bi nga ko bëgg a mu dëgmal ko mhm. lay jublu moom rek lay jublu bu yeewoo mën naa xëy sax yeewu woo ko wax ko li ne ci moom te doo xam lu la ko wooloo te doo xam lu ko ko wooloo mhm. ndax jamono bi nga koy def moom ci boppam yëgul ci boppam daara dëgg la ndax boobu tëdd na tàllal na ay cëram waxtu woowu ci ngay hmm. defee la ngay def te kurus def ca la nga cay def. Hmm. daa ñoo xam ne sëñ bi ay mbind ñaanalu leen. dëgg la daam ñoo xam ne kurus rek leen mën a ñaanal. Hmm. waaw lu dul kurus mënu leen a ñaanal. lu dul kurus. waaw nit dem na ci fukki sëriñ nag juróom. ay mbiram saafarawul. nan leen di wax dëgg daal doomu aadama yi dan dan dan leen a war di wax dëgg. dëgg la. man nit ki bu ma bu may bu ma la seetalee. Mhm. su ma la suñ mënta jëflante dama naan la mën ñoo jëflante. ndax du ñëpp man sëñ Babacar maa leen war a ñaanal. dëgg la. am na ci ñoo xam ne suñu borom ci man la leen dëgmal. Mhm. ma ma war leen a ñaanal ñoo xam ne dëgmalu ma ci man. dëgg la keneen la war a ñaanal. dëgg la waaye nob nob gi nga xam ne ñoo ngi koy liggéey. Mhm. képp koo xam ne jëflante nañ ci. dig ñu waat sant ñu baax a baax. macha waaw ndax doonul nob goo xam ne. luy rate lay doon. nekkul nag luy retard. te te te buñ ko liggéeyee ba noppi. Mhm. moom ndaw si. Mhm. moom dina la topp comme xaj ni muy toppee borom. Hmm? moo xam muy tubaab la. Mhm. moo xam ak mboolem xeet gum doon. waaw ndax dañ naan tubaab yomb a jàpp. dëgg la <laughs> loolu lay faral di waaye waaye gis nga gis nga xam-xam daa doon loo xam ne. yow fa ca yam. yam ko fa te maandu te noppi. keneen ñëwaat développé. bu ko defee noonu noonu la xam-xam demee waaye xam-xam doon loo xam ne. Mhm. Euh, da ngay da naan fii laa yem rek. ñëpp mhm. fii lañ yem. ñëpp fii lañ yem. dëgg la mhm. nopp gi amul lenn lu muy bàyyi. jërëjëf ci wàllu nopp gi euh, masalla sëñ Babacar ñu daal ko waxtaanee mooy xale yi nga xamante ne peut-être judd nañu mënuñu wala judd nañu suñu borom def leen ay rab nekk ci ñoom euh, ñu ci bari jàpp nañu buñ ko buñ ko judduwaale rek mënuñu koo faj ci wàllu rab yoru mu ci loolu waaw loolu dafa bëri lool sax dañ ma koy jàmbal lu bëree bëri rawatina mbokki yi nekk bitim réew. Mm-hmm. nga xam ne ay ndaw lañ yoo xam ne. Mm-hmm. daanaka seeni waajur dañ leen di sàgganee sàggane gi nag mooy. Mm-hmm. ndaw day am foo toll. daa war am sécurité. dëgg la moo xam muy nandal. te fërëtal ko. nandal moo xam muy paake yi niy teg ci seen bopp yi. ak leneen ak leneen nga xam ne. dëgg di takk léeg-léeg bant bala ak paaka di ko teg. waa liir bi te léegi loolu ñoom bàyyiwuñu ko xel. gis nga ndaw. Mhm. jëmmi rab ak junne da daa yittewoo ndaw. daa yittewoo ndaw. waaw daa yittewoo ndaw. Mhm. te nit ñi nag bàyyiwuñu xel am na ci ñoo xam ne fi mu ne nii ba nii mën nañoo màgg ba nii waaye fi mu ne nii wax. Mhm. wax wax wax ju leer mënuñu ko. dëgg la daa bëri ci dañ ko jàmbat lu lu bëree bëree bëree bëri. loolu nag rab dina ko def. nit tamit dina ko juddaale. nit waaw. waaye lum ci mën a doon. Mhm. suñu borom dénk nañu ci loo xam ne. Mhm. képp koo xam ne déggante nan mhm. ñu jëflanteen ci. ci kàttanu suñu borom incha allah rabbi di nga di ñu woowaat santaat ñu bu baax a baax a baax. ñoo ngi ciy jëflante ak ay nit yu bëree bëri. te te ñoo ngi ciy gis ay résultats yu leer. ndax ñun moom daanaka dañoo dañoo xamewul sax dañoo baaxewul di di di di di wax. dëgg la waaye lépp solo daal mooy jëf jëf lu leer. dëgg la. waaye képp koo xam ne eh, suñu boom boole nañu. Mm-hmm. ak mbooleem jàqare wu am. Mm-hmm. suñu suñu déggantee. Mm-hmm. say say say say aajo dina saafarawu. dina saafarawu ci kàttanu yàlla waaye nag déggante gi moom. moom mooy xaw a doy waar lool waaye bu yàlla dogalee ñu déggante. moom incha allahu rabbi di nga sant. di nga sant ok macha allah. ayca jërëjëf suñ Babacar ambassadeur de Serigne Touba mu doon ndaw comme ça su nekk ni ma koy daal di waxee rek waaye tamit doon koo xamante ko suñ borom may la ci wàllu li nga xamante ne moom euh, may na jaaro ak papier ndax jaaro bi ku nekk ci jóg euh, naan maay borom jaaro bi mm-hmm. xamuñu mbootu jaaro xamuñu mbootu jaaro xamuñu mbootu jaaro jaaro day dox jaaro sëñ bi jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi mbir mhm. daa war a dox ba borom di yëg ne lii dox na dëgg la de bu jëlee lu bees war ko yëg ci yaramam de barki Seexul Xadim am mbir daa war a dox mhm. jaaro da ngay takk xam ne jaaro bii mi ngi def effet dëgg la waaye takk jaaro moom mu mel ne na nga meloon kay la yàlla xam doy na dëgg la de ñun nag jaaro bi ñuy liggéey mhm. moom jaaraloo boo xam ne bariwul sax ci ñu koy liggéeyal ndax lañ koy liggéeyee. Mhm. doonul loo xam ne lu ndaw la. Mhm. doonul lu ndaw beneen bi ci toppaat tegtal tegtal ya cay am. Mhm. doonul lu ndaw. waaye képp ku ñu ko liggéeyal jaaro bi. ndax jaaro bi buñ ko liggéeyee pare dinañ ko suul ci jëmmi. ginnaaw barab moo xam armeel ci ginnaaw miir ba. te ginnaaw miir ba dina dina fa am neuf jours yoo xam ne fa lay nekk. moom ah? jëmmi jëmmi jaaro bi waaw. ci ginnaaw barab boo xamante maa buñ ko dañ ko fa suul neuf jours. waaw takk ko fay suul xale la boo xam ne doonul ko xam àdduna. du doon ko xam àdduna. waaw ku góor lay doon. te ko koy ka koy ko fay jëlee jigéen la goo xam ne gu du xam àdduna. moom jëmmi jaaro bi moom jëmmi jaaro bi waaw. waaye suñ ko liggéeyee ba ba ba liñ ci war a liggéey lépp ñu liggéey ko ba ba ba borom takk ko. Mm-hmm. moom àddunaam moom nopp na cee ñàkk ci àddunaam. macha allah te lépp lu mu dugg dina dina ci gis boppam. bunt bu mu fëgg suñu borom dina ko tijjil. ci jaaro bi waaw. Ah. macha allah nit ñu bari dañoo dañoo umpale. yi mhm. mbóot ma Souleymane doon jëfandikoo ca jaaroom ba. Mhm. dëgg la. à part nga gis ñaan xaatimu Souleymane ñi nga ko gis ci gaar yi. dëgg la te xaatim yi ñuy gis daanaka du xaatimu sax keneen waxuma la ak Souleymane du day sori xaatimu Souleymane. dëgg la waaw. Mhm. xaatim la ca kaw jaaro ba nag. Mhm. Souleymane la ca kaw jaaro ba xaatim ba. Mhm. ñu ko am na ñu ko fi xam nag am na ñu ko xam. Mhm. waaye nag ñii may dégg nii ñu naan jaaro bi bi. wallaahi lancim mi ku ma tegoon kaamil ma waat ne xamuñu. xamuñu jaaro xamuñu jaaro ba. macha allah ab jaaro day dox. waaw. maanaam da nga koy takk daal da nga ko a da nga koy takk mu dox beneen bi toppaat jaaro bi nga xam ne dañ koy liggéey. fi mu ne nii boo ko takkoon. mooy yàlla. Mhm. jëmmi jaaro bi doo ko gisaat ci àdduna moom. ah barki Seexul Xadiim. boo ko takkee pare mooy yàlla. billaahi azimi doo ko gisati ci sa àdduna moo xam nga takk ko jour bi nga koy def. Mhm. moo xam nga takk ko moo xam nga teg ko. Hmm? waaye jëmmi jaaro bi. Hmm. moom xëjowul ak am caaxaan moom. xëjowul ak caaxaan. ci xëju xëjowul ak caaxaan. macha allah waaye nag mën naa doxal sa mbir yëpp ci àdduna kenn du la téye du du du fet du amul bunt booy dugg ñu lay téye ci àdduna. bi. macha allah jërëjëf mi ngi noonu jërëjëf euh, sëñ Babacar euh, loolu la ñu jagleeloon si waxtu daan nay jeex wax dëgg fa yàlla mu doon jàmbaar euh, doon tamit ndaw wax dëgg fa comme saa su nekk ni ma koy daal di waxee de dem ba jàngi jotee dem uti xam-xam jotee dem nag fëgg fépp wax suñu borom donte xale la sax ci ay atam waaye nag xam-xam mi ñu ci moom sëñ bi xanaa dañu koy daal di terminer ak li nga xamante ne moom mooy suñu suñu question bu mujj muy wàllum papier ndax ndaw yu bari ñu ngi jaar ci gaal loolu lépp boo xoolee ñàkk papier ñoo lu doon loo xamante lu jafale fii ci réewum Sénégal ci wàllum papier balaa ñuy wàcce émission yi. waaw wàllum papier nag moom. Mm-hmm. moom dañ koy faral di di jëflanteeg dañ ci faral di jëflanteeg nit ñi lu bare bëri waaye. Mm-hmm. dañ cee dugal xéewal goo xam ne yaakaar ci àdduna. Mm-hmm. ñun la ko suñu borom sañ def loo. ci papier te waaw te ñoo ko sañ a def ñoo ko sañ wax. mu ki nga xam ne da ko bëgg ñu ci jëflante. bu la soobee la ngay la bu ñu déggantee ci kàddu. la nga war a jox na ko téye ba gisal sa bopp. ba gisal sa bopp. waaw loolu nit du la ko wax ci àdduna. maam tey jii boo doon ñaani visa teel sa xaalis ba ñaani visa ba may la. man may la man may la. Hmm. bu na muyul bu soxlawuñu sa dara. te loolu doy na waar de. loolu gars yi dinañ la songu de gars yi dañuy xëy suba di la woo naan la maa ngi ñaani de. ah. wàllum papier daal moom. moom gars yi visa rek lañ bëgg jamono ji dañuy xëy suba naan la sëñ maa ngi ñaani. visa xam nga loolu xam nga loolu moom daa yomb yàlla. dëgg la. lu ci baree bëri yomb na yàlla. dëgg la waaye jëmmi ma benn benn message. Mhm. bu ko defee ñu jaaree foofu kii. Mhm. mooy jëmmi ñaan yàlla dañ ko yombal te yombul. dëgg la jëmmi ñaan yàlla. waaw daa am sart yoo xam ne fekk nekkul ci doomu aadama mënul ñaan lu ko suñu borom may. dëgg la. te jamono jii daa xaw a daa lool. Mhm. muy nit ku koo xam ne. doo lekk lu dul. lu la lekk. dëgg la doo lekk àq. dëgg yàlla. doo caaxaan. Mhm. doo nekk ci lu neexul suñ borom. Mhm. doo tooñ. Mhm. doo wax doo génn ci salaam yi loo xam ne lu lu lu lu lu lu la. dëgg la beneen bi ci toppaat yi nga sax ci jàmm yàlla te jot googu la nit amul nit a ngi wax nit. dama lay dugal xalwatu. waaye na na ko ka muy dugal xalwatu na muy tëddee noonu lay tëddee na muy yeewoo. noonu lay yeewoo waaw. tëdd 22h yeewu yeewu yeewu 1h. waaw naan la xalwatu gi nangam nangam nangam gis nga xalwatu yi nit ñi yéen naan nit ñi dañ leen koy dugal. Hmm. xalwatu boo ko duggee leen doomu aadama yi. maa ngi lay waatal ci yàlla ne bu tegoo ci yoon. Hmm. xalwatu gu tegu ci yoon. Hmm. bala ngaa génn doomu aadama yi woote ne ay aajoom saafara woon. macha allah xalwatu loo xam ne looy looy looy looy génn la di xaar. déedéet moom jooni jooni la daar daar. waaw maam dugg nga moom borom commencé naa yëg. waaw dugg tàmbali nekk ci li nga war a nekk. wallaay laxas yi borom commencé na bala ngaa génn mu wax na ne aajo yi saafara woon. macha allah euh, sant nañ bu baax a baax. macha allah jërëjëf mi ngi noonu sëñ bi ñu ngi lay kontaanee bu baax ci teew bi nga teewoon suñu plateau lan ngay daal di tàggatoo waaw xanaa di santaat euh, yàlla rek. Mhm. waaw di julliwaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant sëñ Tuubaa mi nga xam ne amuñu lu dul moom. dëgg la waaw nu nu mel. Mhm. mooma. Mhm. suñuy mbir moo koy doxal. moo xam ci li ñuy jëflanteeg nit ñi. Mhm. ak yeneen ak yeneen. Mhm. waaw ñun daal ñoo ngi sant sëñ Tuubaa baax daal. macha allah waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Mhm. jërëjëf moom lañ fiy dalaloon suñu plateau ambassadeur bu borom Touba ah, muy jàmbaar lool ah, doon ndaw di yëngu ci li moom mooy laslaar mu doon koo xamante ne wax dëgg fi yàlla numéro mi ngi noonu baaxeele ngeen a ba beneen jëf merci beaucoup jaajëf